looloo baax de. Ah, asalaamaaleykum. Cawla ngi dindi. Ah. Cawla ngi dindi. bëtam man fàllu. kii doom. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ba yaa ngi si jàmm. sant naa bu baax sëñ Màkka Mouhamed Serigne nag xam naa sax na fi mu toll nii ci nga lool ba tax na li ma lay laaj du bëri ah, ma bëggoon xam rek maman la ka nga gisee musique léegi. dafa dellu ginnaaw. lu tax loolu. dañuy boole musique bi day dem ba dominer kii wooy kii wooy kenn du dégg wooyam musique day jël wàllam boo booy wooy mu wàññi nouveauté boo wooyee mu yëkkati mel ni ku lay vocal ànd ak ñi lay aw nga daal di nga soufflé man ca dugaat waaye musique léegi. day domine kii woy amatul mbaar amul njolli amul mbëfën amul mbëpp musique du xeex musique boo ko musique yow mi ko musique da ngaa war a kontaan bég déglu ko di ci dund da ngay woy lu neex ba pare nooyi ci ay fekkee ni ne sabare jóg na kalaam yooyu jóg kooraay jóg xalam yi jóg tamay jóg ndënd yi jóg nga boole ndën awu baag woy yaag amplifié yaag <laughs> day mel ni supp kaa njëg gu nu sotti gu nu sotti mbaxal loolu ma naqari ci musique bi. kon maman yow da nga gis ni mari marimba bi moo gën a feeñ tamay ak njong njong. léegi marimba bi ci la. tamay ci la. cung bi ci la dama ni encore une fois man ndax man ngaa dégg xalam bu njëkk da ngay dégg xalam dégg kora dégg balafon dégg flûte dégg vocal léegi nag doo ko dégg foliska bi da ngay dégg kii wooy sax baatam day dee nga yaakaar ni loolu lan moo ko ko jàng ñu géwél sax dana dàq woo géwél. ci kaw mu def na. waaw wooy doole la du géwél rek a waaye doole la lu mu ci doon ci àddina gisaguma benn xale bu bu taal oto dem ca faam ca xaar meeme jaaga nuyoo ak moom ñu ko mii danaa bëgg a woy loo may digal. waaw li ñoom xaar mën a jaaga way ñoom Fama Issa Diop way ko ñoom Fatou Samb du Diop ma ko way ko ñoom Assou Ndiégane way ko ñoom Maama Kouate way ko waaw loolu bu fi xale yi bàyyee te woyuñu ko di woy yeneen way yooyu way day réer ñun ci mag ñi ci mag ñi bu ko fi tegaatee léeg-léeg nga gis benn woy boo xam yow boobu juddoogu bu ko borom rek mu amaat ampleur xam nga lu tax da koo tekki woon way jarul ñàkk way mën naa doo ñaq sama tóodu tas waaye ay mag di seetaan nga sol tubéy joo xam ni day muroog sa yaram mel ni montaa la ma nu koy waxee loo xam ne tubéy ji rek moo fi ne na ma yàlla jéggal tuub naa ko sa ñaari ween yi sitengoos bi sax du ko mat nga bàyyi fi yët bàyyi fi sosam bàyyi fi musóoru daal di def dagg sa bopp ba mu set maa nga def ci périg ba lang ba ca suuf sol daal yoo xam ni doo def mouvement ensemble boo defee ni daanu loolu moomuñu ko nañ desi ci xalam yi ak kooraay yi na xale yi laaj mag ñi mën a woy nañu ñëw jël woy cosaan yi woy nga xam ni booy dem néegu góor moom la lay woyal boo ko déggee doo daw woy ceet laabaan xaxar woy waxtaan woy jubale ñaa ñu xulo souvent euh, dañuy dégg ne euh, en tant que su ma taxawee ak ki nga xamante ni Gris Yoro damay sawar di ko laaj ñu naan laabaan amatul euh, naka nga gisee. ah parce que bu ñuy jigéen daan laabaan xaaratuñu bañ leen di laabaan bu ñu daan rek tëdd ci ginnaaw ndeyam doomu bàjj mbaa waxtaan ba pare mu soog koo yëg ñu koy jox nawleem dikk sën ko jox ko nawleem bu njëkk borom këram génnee ñëw ca bàjjan. jox ko xaalis loolu maa nga la la ci des ma nga def ca suufu nga gënaay la bu baax ñu duggee sar xoole mbedd mépp yeew bu mu xëyee daal di indi ndandi daal di tuus bu ah, ba wàcc loolu amatul fenn xale sax dama dem si fee léegi loolu waaye du fi jóg ci la loolu waaw du fi jóg ci la te xale yu góor yi am fay day tekk ay jabar ku takk jabar boo sañoon jabar ja dana mel ni sa yaay toog ka ju jabar ja di sa bàjjen dina mel ni sa yaay toog ndax xale yi am nañu fayda bëgg nañu seen yaay bëgg nañu démb bëgg nañu jabar ju sérieux kon xale yi nga xam ni sérieux wuñu am na ci du ñëpp sérieux leen ayca ah, kon nag dégg nañ loolu euh, maman le temps que rek may tëj ma bëggoon xam ne ku ne xam na ne nag daan nañ la gis fi nga xamante ni mooy 2STV ñu toog ba yaa gisatuñ la lan moo waral. man toujours maa ngi 2STV. yaa ngi fa ba tey. démb rek def naa émission allah ak ñaar daf ma jox bureau. di ma fay salaire jox ma oto di ma jox paas ma feebaree ma faj ma man nii bu mu dee ba ma duggee gis nga ala ña xam nañ defal dañoo ubbil benn saal bu mag a mag a mag a mag rez-de-chaussée loo bëgg ngay nekkee loo bëgg ngay añee bu tàkkusaanee boo woote suuf noonu la sa guddi daf may fay salaire bu baax c'est la première fois nag géwél ñu woy Sorano ba jóge fa ñu embauché ko. des ko journaliste muy dugg ci mag di waxtaan ak ñoom kenn du allah Ndiaye maanaam Abdou Ndiaye. ngaa nii. waaw kay léegi nag ma bëggoon xam ne tant que may tëj rek lan ngay conseil ñi nga xamante ne ay jeunes lañ di door a dugg ci musique. waaw di dugg ci musique bi. te di xale kontaan ci ñoom parce que bu ñëpp woyul musique bi day waaye kenn woyagul li mag ñi doon woy ku jot da ngay woy sa woy bopp di yuuxu ñoom jëmale leen di ñu dem ci mag ñi jël woyu cosaan. jël wooyu jom jël wooyu boo xam ni su ñaari nit xuloo ndaañ Dakar boo ko déggee da nga da la ñuy wax ñoo lay jubale waaw wooyu boo xam ne bu sa jëkkër takkee jabar wooy waa lay yedd bu sa doom sëyee ak ku amul dara wooy waa lay yedd ba nga ko ko ndax ñaar ñu bëggante rek mooy avenir ñaari xale yu bëggante rek mooy alal ñaar ñu bëggante ñoo mën mu muñante ñaar ñu bëggante ñoo mën a ànd mun ngeen ci ànd ci ngor jur la doom ju baax bu doom ja màggee tekki te Sénégal doom ju tekki fi war a am ndax doom ju tekki la ñu xaar ndax man ñi danoo tekki. ban musicien nag mooy euh, sa musicien. sunu maam sunu maam danoo tekki ban laan. kan mooy sa musicien ci ci xale yi. Euh, ku ci woy woy lu neex. titi nag. woyam day am mbaar. day am bëfën yoo xam nga luy mbaar. xam nga luy mbëpp. xam nga luy xam nga luy njolli loolu na ko génn ci woy woo du am mbaaru mbëfal ak mbëppal mooy boo ñuy yëkkati way wi way wi metti boo demee ba ci digg bi ku aw euh, fës la la nga sàcc tuuti nooyi duggaat ci biir mënudu bi loolu la ci ci di way <laughs> merci beaucoup maman euh, xale yi mën na noo way trop dañoo mën a way waaye man titi ak ak ak eh, aji usa dan may daaneel way du ñeet bu ngeen bëggee way yéen gone yi ci des ñëw leen seet si mag yi géwél yi li mu xam du jeex ñu jox leen ko noonu sunu maam ñu daan jox sunu baay ak sunu yaay ñii ñu jox leen ñu jox leen ko ñun dee xuloo xaritam te France mu yónni ko kaset way ci juboo mu dee ko juboo jëkkëram ñu dee xuloo jëkkëram ci Sénégal nit woy ca France mu jubale jëkkër ak jabar mu dellu ko jubóog moom woy bu yeetewul yeddaatewul defaru kër day yàq kër kontaan naa ci xale yi woy ndax bu ngeen woyul woy dina weet woy amul géer amul géwél xam nga lu am bëgg ko jàng ko kontaan naa ci yéen bon